jërëjëf ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax alors ñi ngi fi nga xam ne moom mooy ci euh, kër Sa Thiès ginnaaw ba ñu ko félicité ba pare euh, ci làmb ji nga xam ne amoon na démb ci diggante moom ak euh, Reug rek dañ koy bàyyi mu nuyoo ba pare saa ñu ngi lay nuyu. waaw ñu ngi santaat yàlla baax di julli ci Yonent bi sant suñu di jiite ci kàddu ba suy tam ñu génn àdduna ñëpp yàlla na yàlla yërëm xaarale àjjana ñu tëdd hôpital aussi tamit yàlla yëkkati leen ñu caa féete ginnaaw aussi yàlla ñu caa féete kanam ñu tëdd hôpital aussi itam yàlla suñu borom yëkkati leen Euh, yàlla def fi jàmm may ñu wér may ñu gudd fan di ñaanal aussi ci way dawla it di suñu papa Gaston Mbengue di ko ñaanal mu ci jàmm mbëbët bi makan am ak bi mu ko samp yàlla suñu borom yeggalal ko bi doom doom bi mën a réussir mais maa ngi ñaanal suñu papa Gaston yàlla na ko yàlla suñu borom yëkkati ci barkar Alxuraan alors ñu ñëwaat tuuti ci euh, combat bi préparatif yi laataa ñu ñëw ci victoire bi et waaw parce que boo xoolee neuf mois lañ ko préparé suma ma juumu ci biir neuf mois yi maa ngi daan ànd ak sama mag amoon fi ñaari combat ci diggante bi yëpp ñoo doon ànd entraîné nekk ci li ñu war a nekk mais fixé wu mu woon d'abord ci suma suma combat quoi tellement nag bu combat am passé après ci la fixé wu ci combat man ak rëg d'accord nga doon bëreeg euh, mbër boo xam ni Sénégal yu bëri dañ ko doon bàyyi xel à travers ci li nga xam ne def na ko foofee ci réewu tubaab bi nga jël ko mu metti lool euh, nga ànd ceeg say mbokk ñu jàppale la ba tey jii yàlla dogal li muy dogal naka nga ñu ci mën a dikkalaatee. mooy euh, l'essentiel xam naa ni man du ma wax ci wàllu MMA du ma wàllu wax ci wàllu li simple am parce loolu boolewuñu fa dem. c'est-à-dire ñu bàyyi xel ni sport sport la mais sport bu ci nekk bokkul ak bi am bee ñun suñu sport national bokkul ak MMA suñu sport national bokkul ak beneen sport maanaam ñu lutte lañ moom lutte simple lutte frappe boo xoolee am na tey ci ay dëkk cosaan yoo xamante ni bokkuñu sax ni ñuy bëri kon loolu buñ ko buñ ko méngalee wala bu ñuy wax waxi làmb nañu waxtaan ci làmb ñu teg ko ci close làmb maanaam li muy def feneen di ko am ci leneen loolu moom la am personnel waaw mais taxul loolu mën a compter ci la am euh, bëri bi waaw MMA MMA la simple simple la lutte frappe lutte frappe la ba xam CNG daf la jox victoire wala da nga def recours ñu bëggoon ba xam ndax doo tontu ci loolu tamit. waaw am na ay kilifa yi ma ci dégganteel xëy na loolu dama koy bàyyi ci sama loxoy kilifa. waaye nag nit lañu rek kenn ku ne da ngay juum non parce que nit moom damay comprendre rek la parce que mënoon na maa daan comme ni ma daane woon mënoon naa koo daan kon ni ma ko daane woon mais dama jàppoon ne rek ba ma jugee man xam naa ni soo waay daanu ma man loolu moo tax ma jug dem dëgg yàlla. ci ni nga bëree démb ci dal gi ci sérénité euh, ak Sa Thiès ma ñu xamoon démb euh, lan moo ci indi changement bi. waaw man du dara li ma war a def laa def li ma andi moom lay yóbbu encore daal jël naa fi ma ko war a jëlee ànd naa ak sumay mbokk ànd ak sumay mag ànd ak sumay kilifa ànd ak waa Guédiawaye yëpp rawatina waa Kër Massar yëpp aussi may xarit yi nga xamante ni bu dégg bëccëg suba ngoon ñoom laay nekkal parce que bari woon na coow bari woon na enjeu c'est vrai ba saison bi taxee ba léegi amuñu benn combat boo xamante ni combat soog mel ni am na fi. mais loolu dañ koy sant yàlla ci man ci Reug Reug suñu sens la waaw. mën nga ñu làmb ji ni nga bëree démb. li tax nga gën a man démb dama buggoon rek bëri dóor. mais dóor bëri laa bëggoon a pare. lu tax ma ne dóor bëri mooy dama bëggoon raak ak moom parce que moo dàq bëri ñu ne moom la moo dàq xeex ñu ne moom la moo ëpp doole ñu ne moom la dafa am nag ñun suñu suñu suñu maanaam ci ci ci ci ci lit bi. lutte frappe bi dafa am ñoo xam ne dañuy gunge salaafa bi muy presse bi ak direct yi nga xamante léegi mi ngi am yenn saa may seetaan euh, direct buzz damay dégg ci ñenn ñii di wax wax yoo xamante ni man ay rees damay jàpp cest à na nit boo ko xamul xamoo ko dëgg la loolu Reug la mbër la bëri naag nawlam bu ne daan na leen ñaar nit la fa nii man mooy premier nit bu ko daan te ci mën a bëreem laa ko daane mën a bëreem laa ko daane parce que dama toogoon rek moyen jour ñu ne ko combat Sa Thiès Moussa Ndoye fi ko Moussa Ndoye yegg ndax boo ko fa yeggee mën a ay mbokkam nañ jug ma ne ko sama tànk ku ko laal mu daan ma man la neex ma la neex mais dem li ma bëggoon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mooy mu doon gaynde akkan ma doon gaynde akkan dama bëggoon ñu ba tërëf ñu doogay bëri mais nag démb moom ñëw naa mi anière raag naa wuy siwuma dóor naa ko kuut man maa ko dóor moom daal dara daal benn koom laalu li ma li ma mën a mooy santaat yàlla baax a baax a baax duma naa ko bëri na ma daan ko ci bi bëri euh, ñu jël victoire bi jox ko rek Reug Reug euh, ñu ko yàlla tey boo defoon euh, recours ñu joxaat victoire bi rek rek naka ngay def waaw xam nga lan moo tax man man dama jàpp sax ruku sa waruma ko def. Mhm. billaay wallaay ndax mënoo toog Sénégal monde entier man boo xoolee rërëb ba site bi amee ay mbokkam kenn kenn jugu ci def leen dañ a ñoom ñëpp xam na ñàkk na supporteram yi ba site bi njëkkee am boo na xoolee ñoom ñëpp dañ a tekk moom nag nit la mun naa bañ a nangu waaye bu ko neexee bu ko naqaree day nangu. am na yenn victoire nag yoo xamante ni yoon moo la koy may waaye victoire bu la réew mi jox pour man moo dàq bi la yoon boobu may bu dee ci yoon la war na nañoo xëy animer sama drapeau war na nañoo xëy bindal ma sama victoire te yoon dafa am loo xam ne neexul daal man ay victoire recours wax dëgg yàlla bëgguma ko. après présentation bi Balla dafa ñëw wax ak yow la la wax foofu noonu ban conseil la la jox li ma la mën a xamal rek mooy Sénégal ba daj wallaay lazim ñoo fi dàq làmb barki Seydina Mohamed Reug Reug bu bëri woon ak keneen barki alxuraan làmbam du am impact nii sama mag la dama koy dafa may gunge far force mu koy neex mu koy naqari sama mag la bu amee bis dama ciy dem ba jeex mu may neex mu may naqari deret dafa foor suñu papa dañoo tere bëre ba son ñu dëgër bopp billaahi wallaahi wataalaahi su ñëwul woon dinaa ko duma dinaa ko daal boo xoolee action bu njëkk bi moo ëpp sit moo ëpp technique cël na ma sama tànk ba mu jeex ma bakko muy yokk parce que bëggoon naa buub samay tànk dajale heure bu dajalee heure bu ñëwee pour pour pour gën maa jege mooy sànniwaat sama beneen tànk bi ci dama def rotation ma jéggi rotation boobu fàq ko ci suuf mu def quatre appuis man bañaar bi woowaatee man xam naa ne daan naa ko moo tax jël moon sa benn intention bëri ma parce que boo xoolee ni ma jëlee deuxième bi ma daanu moo gën a yomb ka par rapport bu njëkk bi wallaay la jëlu moon sa intention bëriwaat mais nag damay def lu ma yoon may may arbitre c'est le maire du soo daanee mu woole ne la kaay bëri da nga ñëw bëri soo pare nga dem def la yoon may mais tamit site boo xamante ni yow balaa ngaa dem ba ba ko daanee balaa balaa ngeen a bëriwaat sax ki eh, écran mi ngi ko yoone pour moi amu woon sens ñu di ko fa waat gis tamit euh, làmb ji ñu bëri dañ joxoon favori Reug Reug mais yow bi nga ñëwee da nga prouver le contraire loolu nan nga ci lan nga ñu ci mën a expliquer tamit. waaw mooy li ma la wax dafa am ñoo xam dañuy defar làmb am ñoo xam dañuy dañuy dañuy yàq làmb am ñu ñu ñu ñu ragal yàlla ñoo xam dañuy wax li nga xamante ni moo am am ñoo xam ne ñoo yemee yàlla nag ñoom dañuy ñëw joxe leen neex boo xoolee du ay xale dong wax ay max sa wax nañ ko mais nag loolu pour man kuñ koy waxee rek ak mii man mii sama moroom li lay yokk jom la rek pour man duñ taxawee ne kii moo la mën dama nga liggéey jàpp sa ñàmb ba may taxaw maa ko ëpp doole kenn nangu ko ba may taxaw maa ko dàq bëre kenn nangu te kenn ku ci nekk fi mu ma yegg ba mu fa yeggee sa morom dalaa daan man mu yegg fa mënuma faa daan bëre la liggéey la liggéey naa rukk naa heure bu ne dem naa ko préparé damaa dem ba benn instant bu ñu toogoon benn un mois damay entraîné di gën a ngeer combat neuf mois dafa bëri sama mag am combat ñuy non. billahi wallahi wa taalahi sama bakkan bopp en personnel yàlla bu ma yeewu suba combat bi laa ëppee xel ma daal. tamit que ni à chaque fois wax ni Sa Thiès buy bëree dafay énervé mais dafa mel ni démb waa rëg-rëg yi loolu la ñu ñëw doon ko doon la ko jéem a def loo tax da nga ànd ak démb sérénité loolu tamit. cest à man moom du ma bëri di énervé xanaa lenn moo mën a am kay. arbitre bi ma ne xaa ma def ko dama ko war a def. mu def ma ko. te loolu ñëpp la farfa man xam nañ dinaa ñëw ñoom xam nañ ko. waxtaane woon nañ ko dégg nga grand Xarim Ndiaye aussi lu mu ci waxaat ñoom xam nañ dinaa ñëw. te su ma ñëwul woon fa lay taxaw di leetoo jàpp jëmale suba ñaari attaquant nag bi ñuy bëri bu ñu ba ñaari attaquant yi di taxaw yaa quelque chose te nag ku jëliwul doo am làmb ji boo jëlee fukki litre teg jëlaat yeneen fukki litre yi teg yi xaar ñi jëm jëli ñoo ëpp vit ñoo ëpp victoire kañ ñi nga xamante ni dañuy rester di xaar. non après dara damaa bëgg a toog noppalu tuuti parce que moo ma sama bopp aussi. sama kanam mooy liggéey déglu samay mag ku yàlla booleel dinaa bëri ak moom aw ma benn mbër may sibile waaw xëy na nag amateur yaa ngi fi euh, nit ñaa ngi fi mbër yaa ngi fi aussi. tamit démb Siteu dafa mel daf doon jéem a laaj sa mag de loolu loolu da nga ko gisee tamit. Engueda <laughs> daal maa ngi koy félicité ci li mu defal euh, xaritam bi waaw loolu laa am lu may ci moom non amoo lu ma ci tontu ndax euh, dëgg yàlla mboota bu la reyee moom dëgg yàlla boo duggee ci kuy la fa jëlee mooy Reug Reug moo doon laaj Balla Gaye itam waaw répp dee rek mooy li ma wax rek keroog wax naa leen ko ci benn émission nee naa leen nit di nga jënd sa kuy mu soxor loolu nga takk buum ma naan la dalay mbëkk mun na laa mbëkk ba gaañ la waaye xam na yaa koy rey <laughs> foofu rek lañ mujjee am. gërëm woon fans yi sonn nañ lool. ñii duñu fans de hmm. ñun ay famille lañu. ñun suñu famille lañu. Ah. <laughs> kii sama xarit la ñu ànd guddee bëccëg suba ngoon. Hmm. ñi nga gis ñëpp kii ñëpp barke alxuraan. mais lamb ci. ah man wóoruma man sangul defal lii ma def man amoon problème. Hmm. mais est-ce ma ci benn côté mais ci benn côté dañ la xoon a jàpp ci mystique wala nga yeewu sa yaram bi tayal et tout. moom moom. ah mais yàlla leen gën a doy waar de. man yàlla laa àndaloon dëgg yàlla pour wàllu mystique moom waaw xanaa ma ñaanu waajur waaye ëpp loo ma ñaanu waajur dëgg yàlla. ñu jeexalee ci moom loo ñuy wax ci moom. pour kan. sa baay bi. yàlla na ko yàlla yërëm xaare ko àjjana ak mboolem julit yi fa tëdd ak ñi ko fekk xam naa ni xolam sedd na fa mu tëdd. si si si Pape moom. yàlla baax na daal. Hmm. merci félicitations merci beaucoup merci gars yi yéen tamit ah.